Aliou Cissé Aliou Cissé ngir yàlla alu Cissé Aliou Cissé lillaahi wa rasulillah boo gëmee yan ci yàlla Muhammad salaay salaam ñu ngi la koy ñaan si barke gaamu gi Aliou Cissé ki nga munti gëm ñu ngi la koy ñaan si barkeem Aliou Cissé dégage Aliou Cissé dégage Aliou Cissé Aliou Cissé doyal nañ sëq si yow doyal nañ doyal nañ waaw ok si yow nañ ñëkkee am kaan merci beaucoup jërëjëf yàlla may nañu kaan jaaree la ko si yow nice mais Aliou génération bii nii waroon na am gàtt-gàtt ñetti kaan wala sax quatre kaan man la sum ay éliminatoire gaa man la sum waay booy ay sie booy ay sie xamoo dara di ay sie man yàgg naa alerte ay deux mille vingt et un xaw ma deux mille vingt deux avant ñu jël kaan bi si laa yàgg dénoncé yow Aliou Cissé parce que yow aayoo cuune ñu amoon benn Habib Beye sax gaa man la sum waay moo la mën fuuf waaye ñaata saawaay ndaanaan ñoo nekk fii gi ay gars yu xam football xam tactique de jeu technique de ay sie xam yow mais da nga xam dara yow yow àdduna yow àdduna ñëpp nee nañ saa waay Sénégal Côte d'Ivoire barki Demba Ndiaye yaa yàq match bi nga génn di jaay dëgër boppu yow sa rasta yi gaan bu nga boo ko daggulee saa waay ah da ngay jaay dëgër boppu ñoo la gën a dëgër boppu fuuf bàyyil suñu équipe. Aliou bàyyil suñu équipe Aliou Cissé bàyyil suñu équipe doyal nañ Aliou doyal nañ si yow Aliou Cissé ngir yàlla Aliou ngir yàlla Aliou Cissé Aliou loo bëgg gaan wala nga bëgg gaan ñu woyal la wala ñu feccal la loo bëgg. ay Cissé pitié waa ngir yàlla ngir yàlla jeex na doy na quoi doy na bu jeexee jeex na ay Cissé musoo xam dara si football ay xëbër xëbër yii la gaan ay taxale yooyu nga musa xam si football kan 2002 fii nga teg suñu penalty raté ko gaan kenn xamul noo dóoree bal bi man xaw ma da ngay di def xaw ma saa nga def nii gaan bukki say bëti gaan ay Cissé dama la mere waa moo tax may waxee nii ak yow mais amal compréhension ngir yàlla rasul laa bàyyi. dix ans dix ans waaye tamit dix ans bàyyi tamit bàyyi bàyyi bàyyi. mafia mafia oh. fédération bi. eh jubanti jubal jubanti voilà suñu ministre Khady Diène Gaye xëy na culture bi nii jaamal la sum waay ay sodaaf yooyu noonu ñu ngi doon dénoncé xam nga a ak yeneen wàll mais sport bi moom macha moom ndaanaan la loolu wóolu nañ ko si te ñu ngi ko si lancé message di ko sensibiliser comprendre na sport bi ngir yàlla rasul laa madame la ministre. loolu wóolu nag la si waa dafal ñu jubanti si fédération bi quoi tasal ñu maanaam mafia yi ak lobby yi fa am ma ay see xaw ma booy da nga koy fay xaalis ko neexal xaw ma moom fii la toog naan xaw ma depuis xaw ma kañ jotul salaire mais jotoo salaire saa waay ah. waaye booy lu ma la wax man xaw ma dafa am ay booy xëy na yu koy neexal xaw ma nu mu demee noonu je comprends pas là wala boobu. système 5 yow booy yow waaye man du ma fi sax nekk naan la bi waroon nga ko woo. système bi nag 5 de 3 li nga waroon teg li nga waaye booy kii daf booy yow ñun xam nañ football de yow loo foog ñun du ñu ay joueur ka du PlayStation de ñun dañoo football nawetaan football saa waay xoola ay championnat ay compétition ñun dañoo xam football gënoo ñu xam football ay sujet suñu coach nawetaan yi sax ñoo ñoo la mën fuuf barki alxuraanul karim coach nawetaani fii nii ah mun naa la limal ay ASC yu dul jeex yoo xamante seen i coach ay ndaanaan boo leen joxoon équipe nationale bi ah compétition bu ñu dem andi ko Sénégal wala boog yow Baye Aliou Cissé yow da xam dara yow waaye yow dégage yow dégage yow doyal nañ si yow doyal nañ quoi c'est le peuple qui te parle làmmiñu askan wi noonu naa fekk naa fekk a ah ak fenkat yi les faux les hypocrites ñi xam ni ñoo am seen intérêt ñoom saa waay xoolal ñooy jëfru waaye képp kuy teewal dëgg di nga xam ne dëgg laa wax Aliou Cissé ngir yàlla demal ana say mboq ay see ay see yow léegi yow léegi loo bëgg yow léegi lan nga bëgg. fédération ngay protéger. dama ne la eh, tubaab yi résultat nañu xam fa nañu wuteex ñoom quoi tey si tey gars Aliou Cissé xoola. suñu suñu final boobu noonu tey damay def am Diop jël Ndiaye defal ndànk loolu dëgg la. tubaab ñu tubaab da ngay dem final sax nga ñàkk nga démissionné. merci beaucoup da ngay am ngor am jom surtout nga toog xaw ma ñaata temps fayuñu la yow nee nga fayuñu la. wala boo yow xo del xool yenn équipe yi nii seen coach yi nii xoola jarul may lim équipe mais ñu si bëri seen coach yi même bu ñu démissionné ñu ah, dàq leen. dàq leen ay équipe yu mag nañ. te lu ma gën a métti mooy lu ma gën a dem ne Aliou Cissé wooy jël coupe suñu final boobu wax contre Algérie loolu waruñu ko woon perte. Sénégal xanaa dañuy fàtte ñaata erreur saa waay yi dëkk ci ñoo amoon. Sénégal xanaa dañuy fàtte amoon nañu entraîneur bu Bruno Metsu yóbbu ñu yóbbu ñu final. yóbbu ñu quart de coupe du monde. te deux ans la fi def. mooy li ma la wax la booy ñun booy saa waay ñun booy ñun ragaluñ de ay gaynde njaay marawat voilà les lions du Sénégal man mii di wax ak yow du gis nga aw ma condition du gis nga waaw man sama physique mooy loolu te boo ma dugaloon si terrain jox ma godaas ma représenté drapeau vert jaune rouge quatre-vingt-dix minutes yu wow kong laa lay wax nii même bu may saawaay xoola marque Vivian Foé si terrain bi sax jaral na ma ko ñun ay gaynde nañ dama la bëgg xamal ne ñun ay gaynde nañ ñun duñu ay ragal on a soif et faim de victoire de coupe de compétition ñun dañoo bëgg gagné ñun bëgguñu dem ay compétition yi di ñax dañ bëgg dem tegle ay kaan booy booy loolu moo ma gën a naqari booy booy xamalan booy ah hmm. booy booy suñu kaan bii passé booy ñoo ko moomoon mu leer nañ ñu booy kaanu Côte d'Ivoire bii booy barki alxuraan mais xoola ministre saay-saay këttigeen mi nga xamante yi nii moo ñëkk def affaire da dafaya waaw jël gaan def lu ko neex ministre boobu man moom laa ñëkk mere xam ni gaan mafia yi mu teg nii saawaay du yoonu ndam est-ce que yaa dégg Aliou Cissé ñëw gën a nekk cuune booy Aliou Cissé bàyyi Aliou Cissé bàyyi. bàyyi mais mais gars yi ne président Diomaye nañ si wax président Sonko Diomaye nañ si wax. waaw ah, nañ ñu jàppale ñu jubanti rupture. rupture si football bi quoi. et puis Sénégal ñaa ah. ñaa ngi koy course. Ah, Aliou Omar Omar Sénégal ay booy yu mën football kese fi nekk. dafa naan Omar def course la Habib Beye course la tey Pape mi nga xam ne si pegam tey course la pourquoi pas ñu jël ñooñu noonu. résultat yi muy def mu nang la limal ay coach yu dul jeex. équipe bi moo leen yóbbu division. dem ba bu jaree sax nañ ko tas waay gaan. fédération moom Augustin moom moo bi mu fi waree ah, jugee sax moo yàgg. waaw ay ñoom Ablaye Sow. ah mafia mafia waa jooju noonu waa jooju noonu. waat Jibril ah, fee ah kii wu mees bi. Hmm? génération foot. kii. Ah, mooy waa ji mu doon dawal Touré Touré la jox fédération bi si jamono yooyu noonu. Touré moo yor fédération jamono boobu mafia yi doon daw. yaa ngi Madi Touré Madi. Madi Touré. waay wala Boob. yi ñu am saa ay ndaanaan yu man a football ay booy Amara Diouf yow booy boobu noonu heure yi nga xa waroon responsabiliser kan bi passé dafa waroon dem. est-ce que dégg ba pare gars ma la su ma xoola fii ak benn deux ans saa mun na nekk sax leader bu équipe bi raw maanaam Sadio Mané fi mu yóbbu équipe nationale Aliou Cissé bëggul booy amuñu leadership booy sont pas yow gaan yow baay yow xoola bët bu rusul toj quoi waaw maa ngi tuub di jégalu mais ndax naq ni ñu yoree suñu ñi nga yoree suñu équipe mais El Hadj Diouf silence El Hadj Diouf El Hadj ba mu duggee si ay supporter nañ dañoo bëgg Sénégal ay Cissé yaa nga nekk di dawal derbi nii défense bi waaw ah, duñ si génnee ñuy kontaan si yow di la bëggee. mais dañoo bëgg équipe ba nga xam ne ku nekk ku def erreur gaan ku def penalty rek la wax wax. seetlu dëgg nañuy topp dëgg nañuy dund. seetlu nga dara. El Hadj Diouf El Hadj Diouf ban nga ñamalee ba léegi dafa noppi te moo doon kaas fii nañ dàqale. yow bàyyi maa xëtt geen boobu gaan dawul suñu yaram. waaw on progresse dama la ay Cissé <laughs> ngir yàlla war a suul laa gaan Aliou Cissé. waaw Aliou ngir yàlla gaan Aliou Cissé. yaa ngi defal publicité waaw lan laa mën a def booy Aliou Cissé booy ah. lan laa mën non booy booy booy. xalaatal quoi lan laa mën a defal Aliou Cissé boobu seetaanee affaire bi gën ah? a. rabal ma non mais Aliou Cissé bàyyi. improvisé non la. yéenay gaynde njaay yéenay gaynde njaay yéenay gaynde njaay gaynde njaay yéenay gaynde njaay yéenay gaynde njaay yéenay gaynde njaay gaynde njaay na ngeen bëggante na ngeen soppante na ngeen wóolante na ngeen respecté bu leen bañante bu leen xeexante bu leen rayante bu leen buge bu ngeen di joué na ngeen soraale ni sénégalais yaa leen di gunge ngeen jàppalante te ngeen bëggante ngeen pasante xamalu ma la ay Cissé ñun gaal xoolal ay ndaanaan nañ booy. ñun ñun dañoo bëgg Sénégal. dañoo bëgg football ma ñëw ay Cissé. waaw dégage quoi man ay Cissé waxuma loolu man tey see man je parle avec le football sénégalais en général dirigeant yeeg kilifa yi si jug ay Cissé boo amul jom ak ngoru maanaam démissionné suñuy dirigeant kilifa yi football bi mais nañ la dégagé quoi. dégage waaw gars saa dañoo yàqamti ndam gaan bëgg coupe yéen gaan suñu premier coupe bii nii kaa wax waaye dañoo gën a xiif gaan loolu noonu saa waay xoola entrée la xam nga entrée plat de résistance bi ñëwagul dañoo bëgg yeneen coupe ñëw coupe du monde sax da nga ko bëgg gagné mais du nii gaan waaw ah, yow tous waay gaan muy bur bur yaa ngi dem bur bër nga nag yow mën a xool de <laughs>